يا أيها الشيق النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من بعد ما اشتريتموها مني أهديتها لكم بغير مني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي dem bekté di dogat ci jotaay bi nga xamné jotaay jataayu la waye jotaay sante yàlla la ci kër alhaaji mouhamadul mustafa mom cheikh mouhamadul amin mom cheikh mamadul fadal mom serigne touba khadim rasoul di waajal bis bi nga xamné ken kenn nattabliwut ne alhaaji mouhamadul amin léppam da ko seeyal ci bir cheikh mouhamadul fadal mbake ni cheikh mouhamadul fadal seeyale won léppam ci bir khadim rasoul khadim rasoul seeyal léppam ci bir rasulullahi sallallahu alayhi wasallam motax moo tax bisub alhaaji mouhamadul amin baara nekk ci weer rajab waaye doon waajtaayu màggalu kasu rajab nag buñ ne suba la ñuy màggal kasu rajab bis boobu la ñuy fàttaliku Cheikh Mamadou Lamine ren ji nag mu war a nekk alxemes fukki fan ak juróom benn ci weeru tubaab dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom di bëccëgum ñaar fukki fan ak juróom ci weeru rajab dara jaale bis bi ren jii di ci fàttaliku waay la mbokkum Cheikh Mamadou Fadal waaye doon mbokkum Cheikh Mahamadou Lamine di caatum Serigne Mas eh, Serigne eh, Serigne Mbacke Mor Anta Sali doomam ja di Serigne Moustapha borom jaamu yàlla ak liggéey moom ma sàmba moo tax ñu toog nii ak njabootu Serigne Moustapha moom ma Massamba ci ndigalul sëriñ Ahmadou waaye ñu fegoo ak mbooleem seex yi nga xam ne ñoo aju ci kër Cheikh Mahamadou Lamine ak mbokk yi ak ñu nga aju ci kër Cheikh Mahamadou Fadal. mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu daayira Ahfad Cheikh Mahamadou Fadal Mbacke yi. nga xam ne ñoom ñooy woote bis bi nga xam ne seen bisu woy jur la di sëriñ alhaaji Mouhamadul Amin Baara ci ndigalu sunu kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu ci daayira bi ñu topp seen ginnaaw nee nañ ñi ngi soññee ci seen bisu woy juru tedd wii mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk ku tedd ki xaadimu rasul te ñu nekk ci kër yépp ci këri sëriñ Tuubaa yi te di ay daayira yoo xam ne dañoo aju ci kër yi ñu bokk daayira axfaat yi nee na ñi ngi soññee bisub sëriñ Mouhamadou lemin Bara bi nga xam ne sunu bisub bopp la ñun ñi nga xam ne ak njabootam lañu te kenn ku nekk ci ñun ñi nga xamante ne si it bokk nga ci seex Mouhamadou Fadal am na ay taxawaay yu ràññeeku yoo xam ne doxoon na ci sa diggante ak sëriñ Alxaaji Mouhamadul Amin ci dimbale goo xam ne dimbale na la ko kon nee na ñu ngi ci soññi mbokk yi ñu bokkal sëñ Touba ak seex yi nga xam ne ñoom la sëriñ Touba defar seeni maam yépp fu ñu mën a nekk ak mbooleem ñi xamante ne si tënku nañ ci lislaam bi yépp nee ñu ngi leen di ci bisub Cheikh Mouhamadou Lamine bi xam ne seen bisub bopp la di wax ci turu sëriñ Ahmadou Mbacke ibnu Cheikh Moustapha al Karim ibnu sëriñ Massamba sëriñ Ahmadou wax na ne mu ngi sant ci bis bii nga xam ne nii waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou faadal def nañ ko dara jaal ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu sëriñ Massamba ñu ngi ci am mbégte bu baax di ko bokk ak waa kër sëñ Massamba gépp nee na mi ngi woo juróom-ñaari buntu kër sëñ ma sàmba yépp bu boobaa ñu àndante ko génn mu ngi wax sëñ maam sëriñ ja ne ko na daaray kaamil yi nga xam ne ñoo bokk ci kër ma Masamba nañ daal di tàmbali kaamil yi daaray kaamil ju mag ji ak ju ndaw ji nañ door kaamil yi buñ ca àggee ca bis ba tam daayira yi fu fi waay mën a nekk ndakaaroo Louga ci région yëpp Kaolack fépp na daayira bi daayira yëpp ñëw daje si fii ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara fii ci Aliou fi ñu koy defee ñu àndante ñoom liggéey bi ba mu jeex takk ñu ñëw ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine mu ñaanal ñu buñ ca àggee daal na waa kër sëñ Masamba gépp ñëw àndanteeg yéen bis bi ba mu jeex takk ñu ñëw ci Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine mu ñaanal ñu jërë ngeen jëf. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara. gannaaw loolu ñu leen di woo ci woote boo xam ne baaxoo nañ koo def ci at mu jot muy conférence boo xam ne dana koy waajale bésub Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi ren nag mu war a tombeeg la 14 février incha allah fii ci Touba ren nag ñu tuddee ko suñu maam Serigne Moustapha ibnu Serigne Massamba yaakaar naa kàddu yi jàll euh, liñ ci wax doy na sëkk. gannaaw bu loolu jàllee ñu ngi woo mboolem sëti seex ma Serigne Touba yi. nu mën a ne ni ko Serigne Ousseynou waxee ba buntu kër Serigne Mohamadou Nil Moustapha ba ca seex Mohamadou Mourtada waaye buntu kër Soxna Fadja ba ci kër Soxna May. waaye nag fépp foo xam ne kër ga fa ne Serigne Touba fa def dara rek ña ngi lay woo ci bis muy mboolem seex yi mboolem kër yëpp bàyyiwuñu fenn. leneen di ci toll dolli ko ñu rendre ci hommage suñuy mbokk yoo xam ne ñu ngi woon ci dëkk bi àndoon ak ñun liggéey bi <coughs> dañ ciy jiital euh, alaaji Mouhamadul Mamoun Ñang euh, dañ ko ciy fàttaliku sëriñ Abdul Kabir moom sëriñ Masamba ñu ngi ciy euh, rendre hommage tamit sëriñ Fallou Diop nekkoon kenn ci liggéey bi noo sëtu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye di ci fàttaliku tamit sëriñ Abdourahman Darul Moxti di ci rendre hommage ba tey sëriñ Fallou Jumaada waaye di ci serigne siri Mbacke mom serigne Cheikhouna moom serigne Abdou had di ci rendre hommage serigne Galas mom serigne Modou bou Dieng waye di ci rendre hommage tamit serigne jililo mom serigne Cheikh Lo di ci rendre hommage batay serigne Khalil mom serigne Fallou ndax len ci djublu moy ñoñu ñok ñun ño bokkon nek ci réew mi wala bokk ci yoon wi ñu dem ñu fatelu ko len ci bés bobu te nako serigne touba waxe won woon isi ma yitan fil qubur wa yanfa'ul fawul wa yujibul ujur kon loolu ñaan dana jariñ kiy dund waaye dana jariñ ki faatu ba nekk ci biir bàmmeelam kon daal bis la boo xam ne bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ñu ngi woo ñëpp conférence bi ma fàttali ñu ngi def thème bi ci maanaam lan moo tax ndaw ñi amatuñu yitte ci jàng ak lan moo tax tamit mënuñoo continuer seenum njàng. fi ñu koy waxtaanee nag sëriñ Fallou Boussa Assane la. ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Moustapha Mbacké moom El Baara. lii ñuy tàmbali ci wax dañu daan baaxoo di ko fi wax ci màggal gu nekk muy soññee soññee bi it sëriñ Moustapha nee na màggal gii nañ ko fonkaat bu baax a baax sëriñ bi nag di wax ni mbooleem fu taalibe nekk mu tàmbalee ko ci biir këram gii ba ci fu mu nekk ci réew mi rek mu ngi lay soññ ci màggal gi del leen wax ni suñu jàmbaar jooju yi nga xam ni kat dafa nekkoon ak noonu di def ko di def lo xamni ni kenn ku nek yang ci tek sa beut kenn ku nek xamna kan moy alaaji bara waye alaaji serigne fallu moma jur doyu ko won dafa ko wat def ak laxasaayam ci serigne fallu loli nak ku ca nek muy sa jambar ju def loolu war nga am sa pëstéefur waratoo xol dara lu ni dan rek alaaji bara ni dan bisam bi baña a bis baña te beug dara lu may loo am nga def ko ci bisam bii loo xam nga wax ko ci fas yéene def ay kaamil fas yéene jàng ay xasaadit fas yéene def ay fiddaaw yi xarit yi am di jàmm yi ak dëkkandoo yi di ko yëgalit mbooleem kilifa yi diine yi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi fu ñu fi mën a nekke ak seenu njaboot ñoo ngi leen di fàttali bisub Cheikh Amadou Lamine ci biir fàttali boobu ak yëgle boobu ci turu Serigne Moustapha di ci jiital daaray alxuraan yi ak daaray kaamil yi ndax li ñuy def ci bis bi lépp njariñ li nga xamante ni moo ci ëpp doole dara jiitu ci alxuraan salaatu ala nabi ak xasidi cheikhul mi ak lu waay mën ci aw yi wu baax wuy amal Cheikh Abdou Lamine njariñ fa mu nekk mi ngi koy jiital njaboot gi leen ci soññi dajale woon na leen fi lu jiitu bisu tey bi ngir jox leen ay dogi alquran yoo xamante ni ay sasi kaamil la yu aju ci doom yi muy ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ak mbokki taalib yi nga xamante ni ñoo aju ci kër gi ak fu ñu fi mën a ajoo ak képp ku ñu mën a wékk seen pas-pas ci biir kër gi di ko soññee te di ci ni ko fi jiitu waxee rek bis bi li ko jiitu mooy ndaje mu sët yi di daje di def conférence yëkkati lépp tudd ko sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba di ñaan yàlla suñu borom dolli yërmandeem fa mu nekk waaye di yëkkati yëgle bi di ko jàllale ci képp ku nekk ci réew mi waaye rawatina. ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi di président Macky Sall ak premier ministre Amadou Ba ak membre gouvernement bi yëpp di ko yëgal président Idriss Seck ku ne xam na ne ci njabootu Cheikh Amadou Lamine la bokk di ko yëgal président assemblée nationale Mamadou maam Diop di ko yëgal soxna Aminata mbeng Ndiaye di ko yëgal képp koo xamante ni yaa ngi ci biir réew mi ak foofi nekk ak lépp loo xamante ni yaa ngi ci yëngu ñu ngi lay yëgal bis bi ci soññi euh, monsieur le maire Cheikh Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom la sëriñ bi dénk dëkk bi ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp waaye rawatina turandooy Cheikh Amadou Lamine yi ci njiital sëriñ Baara Faal ak sëriñ Baara Saar ak sëriñ Baara moom sëriñ Mamor ak sëriñ Baara moom sëriñ Jiili ñi nga xam ne ak moom sëriñ Cheikh Daar Rahman ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéeyu turandoo yi di taxawu alquran ji ci bisu màggal gi lu jiitu màggal gi ak bisu màggal gi fii ci mbaar mi te bu bisi mosaan ñëw ñu futteeku taxaw ci li nga xamante ni mooy setal dëkk bi ci ndigalal Serigne Moustapha waaye taxaw ci teeru gan yi ak dalal leen ba lépp loo xamante ni lu gan di yittewoo la te war a mën a nekk diggante kii dalal ak ki ñuy dalal ñu taxaw ci ba mat sa tey ñaan yàlla suñu borom mu yóbbu ñu ci bisimilahi rahmaani rahim ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Mahamadoul Fadal yi gàtt na waaye matale na. te ànd naag pas-pas bis baa ngi noonu le 16 février lay doon incha allahu rabbi dëppoog bisub alxames di amee fii ci Aliya ci kër alaaji Mouhamadou Moustapha ak mboolem buntu kër yi njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine gépp bis bi nag sëriñ bi nee ne mi ngi ko yëgal fépp foo xam ne ab daayira nga fa boo xam ne daayirab sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la alaaji Mouhamadou Lamine Sénégal la fi nekkaloon alaaji Mouhamadou Lamine diiney lislaam la fi nekkaloon waaye alaaji Mouhamadou Lamine yoonu murit la fi nekkaloon daana wax ne lépp lu ngeen fi gis rek dongo yee ko fi indi kon ma nga woon ci biir dongo yi bis baa ngi noonu nag ci ndigalul sëriñ Abo Baraka waaye ci kilifteefu Cheikh Mahamadul Muntaxa mi fii sëriñ Touba ak mboolem njabootu Cheikh Mahamadul Fadal gépp alaaji Mouhamadou Moustapha nee na ku mi ngi ñaan sun borom tàbbal la ci biir yërmandeem ja waaye faj sa aajoy àdduna ak joj alaaxira wassalaamu aleykum wa wa barakaatu. rabbi kari mulwazimun wa yufadilu ووسيلتي عبد لدي مفضل